Côte d'Ivoire li ma fa jëlee mooy euh, jongante nañu ci localité yëpp ñeenti candidat la ñu woon ñoo déposé seen euh, dossier ca conseil constitutionnel conseil constitutionnel accepté ko ñeent la accepté ci ñi déposé woon donc euh, ci conseil constitutionnel ci ñeent ñooñu bi ñu ñëwee ci élection yi di jub élection yi ñaar ñi ne bokkuñu ah bi ñaar ñi ne bokkuñu ñaar ñu ci des muy Kakabe ak euh, président Ouattara ñoom continuer président euh, président Ouattara ñoom ñaar ñu continuer ne dañuy dem ci élection yi yeneen ñaari mooy président Bédié ak afi N'Guessan ñoom ñooy ñaari candidat yi nga xam ne dañ ne ñoom dañuy boycotter ah bañ ko defee élection yi déroulé wu élection yi nag bu mu déroulé woo situation ba na mu meloon ak ay élection parce que élection toujours en fonction situation en fonction situation bi quand même am na ay élection élection yi génn na li muy génne de manière objective moom mooy ci ni ma ko gisee donc élection yi mu ngi noonu génne nañ ko génne résultat yi résultat yooyu nag xam nga ne il faut mu nekk résultat yoo xam ne fay mag trop parce que ñaar bàyyi nañu ñeneen ñaar bokk nañu c'est normal alors li ma wax mooy ci sunu dëkk yi sunu réew yi ni mu fragile li ñu war a jiital mooy développement wu réew yi mooy xool sunu doom yi ak sunu sët yi xool leen nit ñii seen avenir ñun ci loolu lañu war a liggéey mooy développement pour que xale yi tey euh, mun a am fu ñu sukkandiku. élection nag dafa nekk moment boo xam ne moment euh, républicain la moment républicain boobu nag bu ñëwee dañ ci dem mais buñ ci demee buñ ci paree rek nañ joxante loxo foo fóonante ku nekk dem même bu ñu contenté même bu fekkee ne yow bokkuñu parti bu ñu gisee war nañu waxtaan war nañ kii parce que ñu ñëpp ay mbokk lañu mais bu fekkee ne ku nekk dafa denc paakaam parce que yow ci parti bee nga bokk kee parti bee la bokk bu ma la gisee bëgg la jam eh, baaxul. parti opposition dafay am man opposition laa je suis opposé à Macky Sall je suis parti d'opposition je ne le cache pas parce que am na doxalinam yoo xam ne ma ci mais moo ci d'accordul damay wax ne d'accorduma ci je suis parti d'opposition mais est-ce que dafay tax ma jël paaka denc ko moo gis bu ko jam non loolu bu sama philosophie euh, ci ci ci ci bu may nekk euh, opposant alors moom nag laa leen wax parce que sama ñaari mag la ñu muy président Bédié ak président Ouattara muy doomu réew Abidjan boo xam ne ñun ñëpp fier nañu ci ñoom ci lu bari muy président Bédié muy président Ouattara ah puisque samay mag lañu te ñoom dañ ma joxoon aussi cëru rak ku ci nekk ci ñoom ñaar waxtaan naak yow parce que dama demandé woon audience mais avant élection yi benn ñaar laa ci gis muy président Ouattara ak président ak euh, kii Kakabe Euh, Afy Nguessan dama ko dama ko ne dama la bëgg a gis ah ma yeewu ñu ne ma bon mun nga ñëw ma ñëw fi may recevoir yi ma gis ne adjoint la wax mu ñëw bon pour recevoir ma ma déglu ko mu wax a wax wax ne ma waaw dafa kii jàpp nangam nangam ma ne ko d'accord jërëjëf euh, mu taxaw di ma xaar ma ma ne ko jërëjëf boo demee nga ne Afy Nguessan ne ko. xaritam premier ministre Sénégal muy Hadjibou Soumaré moo fi ñëwoon lu bëggoon jox yow loxo en tant que premier ministre lu ma ko ma yem foofu ah, bañ a discuter ah, lu may wax sama xaritu premier ministre laa doon jëm seeti ji mu ne dafa jàpp ma ñibbi parce que man dama euh, jóge ci réew aussi te dañ ma jox mission en tant que CEDEAO donc xam naa sama valeur mission xam naa fu ma jógee alors ma jóge fa ma dem président Bédié moom tey la ma recevoir ma wax ak moom ma wax moom ci guddi gi li ma leen wax sama ñaari mag yooyu muy président Ouattara di président Bédié may lancer un appel solennel pour que ñu waxtaan ñu waxtaan. ñu waxtaan nañu waxtaan parce que xam naa ne ñoom ñëpp doomu Côte d'Ivoire lañu te bëgg nañu seen réew te ku ci nekk def nga ci sa réew loo xam ne ñëpp naw lañ la ci ma leen di ñaan pour xale wu Sénégal nga xam xale wu Sénégal xale wu réew yépp xale wu Sénégal mooy xale wu Côte d'Ivoire xale wu Côte d'Ivoire mooy xale wu Sénégal mooy xale wu Ghana mooy xalewu wu yeneen dëkk yëpp. xale wu Nigéria et cetera xale wu CEDEAO yëpp ma leen di wax ne leen xale yi ñu ngi leen di xool te bu fa dara amee xale yi ñoo ci gën a sonn ak jigéen ñi surtout jigéen ñi maa leen di wax pour ñu jéem a waxtaan ci seen biir jéem waxtaan pour jéem a juboo bu ñu juboowul sax mais ñu waxtaan pour joxe message boo xam ne mooy élection du jamante paaka élection mooy loo xam ne moment euh, républicain la moment citoyen nga def ko bu suba ma jox la loxo dem opposant la ma kon ni di opposé wu yow laa àndal ma kon ni di ànd ak doolu loolu laa leen di ñaan sama mag yooyu vraiment ma leen koy ñaan en tant que doomu CEDEAO doomu CEDEAO te xam naa ne dañ ma dégg parce que nit ñu baax lañu xam naa ni bëgg seen réew ba mu ëpp sax moo leen di indi ci yenn yi ñoom ñaar bëgg seen réew ba mu ëpp moo leen di indi ci yenn yi moo tax ma leen di ñaan ñu waxtaan waxtaan pour mun a juboo ci élection yi yëpp nag ci sunu réew yi nañ ko wax balaa élection di am giseen ngeen li fi am fii mooy am feneen nañuy waxtaan classe politique bi du tee ñu contre man dama man je suis opposant à Macky Sall d' accord ma ci yenn doxalin yi dama koy wax de manière franche amul problème ah amuma benn problème ci loolu wante du tax ñun ñëpp ñu jël ku nekk paaka sax ko bu di xeexal yooyu yooyu. ñun xale yi sax dañuy jëppi. CEDEAO warul soppi doxalin doxalin. CEDEAO CEDEAO war na euh, waxtaan ak ñoom boo nee waxtaan ak ñoom war na seet nu muy def ba kii mais xam nga CEDEAO aussi institution la institution boobu. président du de la conférence des chefs d'État kan la benn président la président bi lu mu ciy loolu mooy tax institution yi ak lu ñu am am doole am na foo xam ne fa la ñu mun a yem man président institution laa woon oui moi mais am na foo xam ne xam naa ne woon fii laa mën a yem moo tax dañu war a jàppale le président de la commission de la CEDEAO nit ku baax ku ma xam xam naa ko ça fait plus de trente ans booba temps maa ngi nekk jeune inspecteur door a génn ñu jox ma ma nekk ci division boo xam ne moo doon gérer programme mu Sénégal loolu fees na trente moom mu nekk jeune fonctionnaire du Fonds monétaire di ñëw fii mu nekk nit ku baax nekk jeune fonctionnaire di ñëw fii ñu xaritoo ci di xool problème mu Sénégal yi di ko defar di ko di extra bu ma amee problème ma woo ko mu mu nekk Washington tam moo woo ko ne ko waaw loo xam ci lii de ñuy jéem a travailler ci programme yi mu nekk nit ku baax. alors kooku dañ ko war a jàppale pour que mun a def liggéeyam na mu waree. naka lañ koy jàppale. naka lañ koy jàppale moom mooy kilifa yi nga xam ne ñooy kilifaam ñoo ko war a jàppale <laughs> kilifa kilifa yi moo ñoo jàppale jàppale bi mooy euh, di ko déglu daal bu nee ñu dialogué ñu dialogué bu organiser yenn ñu dialogué loolu rek wante loolu parce que ci élection la ñuy wax. wane ñu dimbale ko mooy dimbale ko pour que ñu fexe ba nga xam ne élection yi dafay léegi nekk élection yoo xam ne dootul élection wu xeex dootul élection boo xam ne nit da ciy dee dootul élection yoo xam ne xale yi buñ ci jógee ku nekk mere sa moroom bu ñu rombantee sax bëgg a xeex ay xale yu réew dañu war a jàppante di développer seen réew di fexe seen réew développer ku ci nekk di góor góorlu mais loolu pour ñu góor góorlu xale yooyu góorgóorlu état moo war a def loo xam ne xale yi dañuy góorgóorlu du jël xaalis rek. Euh, boo ñii ñoom laa àndal ma jox leen ko wala jël xaalis bon suba ma ne bon France ba la ko non loolu développement. CEDEAO moo mënu ci dara lu dul waxtaan leen loolu rek la ci mën. ah CEDEAO ban arme la am wax ma ban arme mooy dafay sanctionner état. est-ce na mbuus parce que dialogue bi nga wax nii est-ce parce que gis nga. Hmm. béy mu du wër mbuus mukk. du xam nga guerre. bu ngeen di guerre. bu ngeen di guerre. commencé ngeen guerre du gis nga guerre ay at 14 18 lan la woon 39 45 lan la woon fu ñu mujjee. voilà moo tax ma ne la moo tax ma ne la dara du wees. li indi problème bi c'est le ma ne dara du wees ma ne du wees processus électoral bi li ma ci wax leer na nee naa leen processus électoral bi contenu environnement bi ni mu mel élection yi déroulé wu na na mu war a déroulé contenu environnement bi laa la wax. Mhm. da ngay baax li ma wax de contenu environnement bi. ñaar ne ñeent la woon ñaar ne dañuy bokk ñeneen ñaar ñi ne bokkuñu mais ñaar ñi bokk kay ñoo ñooñu la kay wote. Mm-hmm. bu ñu wotee kay bu liy génn ci urne yi mooy ñooñu la cay génn kay mun na nekk sax 100 pour cent mun na nekk 90 pour mun na nekk 99 pour cent parce que ñaar ñooñu rek ñoo ci wote. coalition Idy 2000 ay gor ñoo ko seq ay gor ñoo ko seq damay insité bu baax ci loolu ay nawle ñoo ko seq gor ak nawle buñ ko seqee bu dara amee dañ koy waxtaan. man nag dama voyagé woon maa ngi door a ñëw xaw ma nan la demee lu tax nan la yi demee moom lii am xaw ma ko donc damay maandu ba ñu waxtaan ma xam nu mu demee bu boobaa danaa wax li ma xalaat. mais da may bàyyi ma terminer ba ma posé question da nga may bàyyi ma terminer alors man toog naa ma dégg ñu ne. Euh, coalition de 2000 bi sey na ci kii déedéet. 2019 déedéet déedéet Idrissa Seck moom nekk na président conseil économique et social ñaar ñoo xam ne ci parti am lañ bokk ci li ma dégg bokk nañ ci gouvernement bi keneen kan moo ci bokk si si si ci am na ñeneen ñu ne leen ñu bokkul ci parti yow consulté man de man maa ngi ci télévision xam bu bu foofu laa ko yëgee laa ko yëgee. Idrissa Seck gëj nañu wax balaa may jógee ndakaaru te ay toog nañ lu yàgg sax waxuñu balaa may jóge Dakar loolu moom mun naa ko wax parce que du fen boobu tax nag xam naa ne dañu dañu amul woon ay réunion mais daal loolu mun naa ko wax léegi nag lii xaw ma nu mu demee damay màndu ba waxtaan ma xam bu boobaa ma wax la ma ci xalaat. lan mooy ci bu moo demee ci réunion ba xam bu ma waxtaanee ba pare ci réunion ba laay xam. parce que xaw ma ko. xaw ma ko maa ngi soog a ñëw xaw ma ko li may wax daal mooy man bugguma yàpp sénégalais yi bugguma sénégalais yi di ma xool man Cheikh Agibou Soumaré te nga xam ne dañ ma wóolu woon fii def ma ministre def ma directeur directeur général ministre premier ministre. ci kóolute réew mi ñu jox ma ko ma xam loolu lu mu doon tekki ma jóge fa ñu jox ma président commission UEMOA ma xam lu mu tekki ci suma réew parce que sa réew bu la sasee da ngay xam li la sa réew sase te dama bëgg lu may def rek ma sóor ci respecter sénégalais yi moo tax bëgguma sama làmmiñ ma génne ci loo xam ne fen la mun naa juum nag comme ñëpp mun naa wax lu dul dëgg sax mais ci damay bëgg toujours bu ma waxee lu lu dul dëgg sax mu nekk ci juumte voilà léegi nag lii am na bu ma demee ba waxtaan danaa xam.